am na ñoo xam ne jot naa wax ak ñoom yoo xam ne jot naa yónnante ñoom message euh, wante mënuma tontu ñëpp euh, moo tax may def vidéo bi di ci jégalu nag di leen sant ci gërëm li ngeen ma defal euh, mënuma ko defal suma bopp ñaan ci ngeen ma defal mënuma ko defal suma bopp te bii gën ci ñaan mooy ñaan yoo xam ne làmmiñ beneen moo koy tudd jëmale ko ci borom bi Euh, ñaan yooyu la suñu borom di gën a gaaw nangu moo taxit suñu borom dégg na seen ñaan nangu na seen ñaan ba euh, yàggul dara xibaar nañ ma ni testé nañ ma encore plusieurs fois test yëpp négatif euh, mën naa génn dem fekki suma njaboot incha allah kon nag maa defoon vidéo wax leen tiis ak nattu joo xam ne sunu boroom tegoon na ma ko moo war a def ak vidéo sant leen gërëm leen xamal leen ni seen ñaan sunu borom nangu na ko maa ngi leen di sant bu baax suma waa kër suma njaboot ñëpp a ngi leen di sant maa ngi euh, gërëm euh, kilifa yëpp kilifa diine yoo xam ne euh, ñaanal nañ ma jàppale nañ ma muy kilifa diine ak aada kilifa diine jullit ak chrétien kilifa aada yi kilifa politique yi tamit autorité yëpp di ci bi euh, di ko sant euh, di ko gërëm ci initiative yoo xam ne jël na ko pour que réew mi yëpp nekk benn ñëpp ànd xeex Covid 19 bi di sant tamit autorité politique yëpp yoo xam ne nekk ci opposition yi nekk ci nguur ak société civile ñëpp euh, di leen sant di leen gërëm bu baax a baax mu bëgg nag beral ay nuyoo.

xam naa lool lool lool lool alamin ñaanu ak seen ñaan ko ngi sant bu baax kon vidéo sant rek la vidéo gërëmante rek la euh, vidéo bi ci engagement continue contre le Covid 19 di encourager tamit autorité euh, pour ñu gën a anticiper ci crise bi crise sanitaire la dëgg wante am na crise économique boo xam ne mi ngi euh, ci ginnaawam kooku baax na lool ñu mobiliser wu euh, généralement nag mel nii euh, ñëpp ay mobiliser wu di xeex bañ nag xalaat sortie de crise te day baax ñu mun a anticiper mooy encourager te chef de l'État boo xam ne jël na initiative di recevoir nit ñi pour di wax ak ñoom ñu nekk benn réew mi nekk benn mu continuer euh, dialogue boobu pour ñu mën a continuer di waxtaan ci sortie de crise bi lu am solo la ndaxte kat impact bi mën na indi ay lorange yu am yu rëy rëy yàlla ñu ci yàlla musal kon nag di sant ñëpp di gërëm ñëpp di baloo àq ñëpp wasalaam alhamdulilah rabbil alamin